génne si ngom kis kirumbe kis kirumbe génne si ngom kis kirumbe yow njaay ni si ngom bu dee juróom di nga yëg ay waay ay waay bu dee ñaar ko tam ngay dese dibi sey kuy daj sey ngam génne si ngom sama yaay kuy daj sey ngam génne si ngom Jean Michel mi kuy daj Jean Michel génne si ngom sama baay booy kuy daj si ngom papa Tony kaay kuy daj si ngom mangar waay kuy daj si ngom eh Ivoirien kuy daj sey ngom waya koy daaj. waaw kii si ki ring. kii si ki ring dama ko bëgg a dégg ca kaw. ay kii si ki ring. ay waay ay nga ñam nga ñam leen. kii si ki ring ay nga ñam nga ñam leen. ay nga ñam nga ñam leen. waaye ay koy daaj ji say ngam. eh singom daaj ji ngam. singom daaj ji ngam. kura sake sake te kii. singom daaj ji ngam. singom daaj ji ngam. kura sake sake te kii. singom. kii si ki ring. Singota, singota, singota, singota, singota, koy nekk kër fax jërë. laa ilaaha bu ne lay fent moment bu ne day créé te moom it dafa nekk koo xamee ni ndaanaan la tamit doon taalibe Serigne Touba nekk artiste bu baax dëkk Touba di def lu baax nag bëgg artiste yëpp respecté mm. mbokkum ndeyu jàll mais mm. si ngoom ñëpp xam nañ ko ci lépp xam nga loolu Tony kii war dàq lépp ci Afrique waaye Tony mii moo jàngal lépp këtu lépp yi ci réew mi. kii. dañ koy ñaanal yàlla gudd fan moom. parce que li jëm ci di léegi su seen bu tollee fii ci réew mi rek ñoom ñoo ko liggéey. mbaa du benn paa woon ci moom la jóge ay ak benn maire la woon ak sàcc bi. si ngoom may nu ñaar rek ñu dalal nag suñu gan yi. waaw kay bàyyi ndax xam nga après nga doogay euh, door nag single bi ci kanam. maanaam ñun. waruñu woon a taxaw fii sax di lépp comme ni ma ko doon waxee waaye ñu mos ndax maanaam mbir mi ah, ah ah lépp ñëpp la te lu ne ku nee ngi ci te comme ñoom sunu ay sunu ay référence lañu ah. di ay royukaay wax dëgg yàlla ndax ñoom bu ñu yàqoon aar bi ñun duñu judd ba am fitu ne mm. dañuy dugg ci aar di ko def métier mm. dëgg la te fa tabaarakallaahu macha allah mm-hmm. ñun eh, fi mu toll nii aar moo ñu def ni nu mel mm. maanaam bu nu génnee nit ñi dinañ nu bégee te tamit ah, ñu ngi ciy tedd di ci tëral suñuy waajur ak ñu ñu jege yàlla na donc faa ñu ñamal leen ay mbir yoo xamante ne fekkee nañu ko ndax ñun hmm? wax dëgg yàlla ah, sanu sañumaa toog man mag ñi toog fii ñii taxaw fii di ay icône ma fi wax loo xam ne nii du dëgg wala ah, fekke wóorul de wóorul de wóorul de sax si yow loolu moom baaxul sax si yow boo defee ba nga wàcc ñaar ñi ma àndal nag sama ay frère lañ ñoom it ah. di ay di def lu rafet kii Ousmane Seck la tudd kii uh-huh. Ndioufane Ousmane sunu xarit bu baax ma leen di nuyu di leen dafa am man sama samay maama neex ah waaw waaw baadu sama maam du gure <laughs> waaw xaaral bi ma samay maam ñoom ñoo neex te euh, maanaam compliqué sama maam du gure ndeysaan fa mu compliqué rek fa nga compliqué sama papa Tony mm-hmm. ndax Doucouré moom mooy def yow xamul crédit nu sa crédit toll nga woo ko muy def présentation boppam ndax mm-hmm. ancien gendarme à la retraite la kooku day rigoureux boo ko nee allo danaan la ah, Mamadou Doucouré ancien gendarme à la retraite qui est la l'appareil asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ku baax na nga def noo tudd foo may woowee ak ban réseau nga may woowee ah il bien le travail. mës na koo def benn waaye crédit bi dafa ne teet teet jotul wax soxlaam waaye sama yaay jii toog moo ma fàttaliku loo loo xamante ne weeru koor bii paase la. ajat rama caam bala maa xuus ci sama maam ndax moom ay mbiram day ëppi loxo. Ah. Oh. sama maam bu jigéen ndeysaan mboose danoo toog weeru koor mm-hmm. ñépp koor kër famille mu ne ma si ngom ma ne ko naam mu ne ma si ngom ma ne ko naam mu ne ma si ngom ma ne ko ba muy ñetti yoon ama oh. kaay boobu maa ngi ci saal bi moom mu ngi ci ëtt bi may jur góotu ku ne xam na ne jur góot da lay yóbbu yenn saay ci ay dimension yu doy waar fu neex ma nekk ak jur góot bi naan wooy sama ndey wooy di yuuxu di dem ak jur góot bi mm-hmm. maa ngi woon Sénégal mais fa ma nekkoon ci monde imaginaire bi mënuma koo wax fii dem naa états uni juge fa dem Espagne juge fa dem France fu ne dem naa fa ak jur mhm. sama maam bi ma woowee ba ma ñëw. mu ne mhm. ma damaa bëgg comme ñaari loxo mooy takk tubéy te ñaari loxo mooy takk sër lu góor mën jigéen war na koo mën waaye lu jigéen mën góor war na koo mën damaa bëgg dama lay jox ñetti téeméer ma la joxee ñetti téeméer nga dem marché bu ndaw jëndal ma fa jën boo ñëwee ma wala ni ñu koy fiiriiree nga fiiriir ko ndax tey maak yow fi nekk te damaa jëm mag dégg oh. loolu ma dégg ndigal ne ko maam ayca mhm. mu jox ma ñetti téeméer yi ma dugal sama poche nee naa leen bat maa ngi yegg sama jur mhm. ma génn ak jur bi mhm. di dem di dox di dem di dox di dem di dox di dem ak jur bi wuy sama ndey <laughs> waa maag bi ma ne ca nekk ak jur bi nekk ak jur bi jaawale marché bu ndaw ak police bi ah, ah. am nga problème de dugg nga fu doy waar de bi ma dugg see maa ngi fa fekk ndeysaan commissaire bi waaw du commissaire Touré bu golf. mu mera mera mer du commissaire Touré bu golf. ci hmm. commissaire kure la. Hmm. xaritu ceeb commissaire pourtant commissaire ngi fi nag. Hmm. taw commissaire Tafa ngi ci. ko fa fekkee. ak sadi commissaire la de. ndeysaan damay jurgóotu salaamaaleykum. maa ngi jàkkaarloo commissaire maire jaama jën 1500 ah nag na jar waay fexeel mu gaaw. dérégé bi kay. boobu ba tey maa ngi gëm. mais commissaire bi bi mu fëggee table bi. ba jug man damaa tiit. Mais comment yow tu te de la République ou bien tu de toi-même ou bien tu te de moi. dëgg la yow man ngay bëgg a fantoo man maay sa jaakatu jël man maay meer. noonu la nu mel dañ tàng xol dëgg la. di génn ci man ba tey egg si waatu. <laughs> mais alhamdulilah da ngay tiit ma deseeg sama ngor. waaw <laughs> jur góor bi ba tey. nii rek ngeen di def qu'est-ce que tu as ma ne ko plume. jur góor mu ne ma ramène-moi ma jox ko ma jox ko jur góor. mu woo brigadier ñoom ñaar ak ñoo dégg ndigal brigadier kee ñëw fee kee ñëw fee mu ne ma déshabillé moi ce petit con. ah, ah ñu summi ma. Ah. summi sama yére ah, summi sama euh, sous-vêtement mhm. summi sama tubay summi samay daal yaa de yaa dugg ci loxo muur de ah yaa nangu dëgg la bi demee summi caleçon bi mu dawal ma yërmande ndeysaan waaw ndeysaan mhm. loi da koy mere bu ma mere surtout côté ay bu ñëwee ba ci ay côté kii yooyu mere bu ma mere bëgg ko mere gu ma mere tax na moom fi mu ma denc ma moom nii ñooy jàkkaarloo buggul intermédiaire sama diggante ak moom. ndeysaan. la nga defal nii moom maanaam métti nii moom kon ni ma jàkkaarloo ak nii ma lay xool nga may xool moom noonu la noonu la ko préféré woon. si ti ti ti ti da de. mais nee naa leen jur góor bi moom laa ko jox ñu ma dugalee foofu deux minutes mu ne mais booy yi dañu con quoi. dañuy jël ay affaire ba mu leen di yóbbu ci ay dimension. dégg nga comment. waaw <laughs> ne voyons <laughs> voir. eh waay mais voyons voir boo ko rey. waaw. Ah. foofu la woykat bi ndekete sàccee wu yaay sàmba ak ay waay sàmba. Ah. waaw. dafa jël jurgóot bi di essayer bi muy essayer. man xam nga nee naa leen man am naa ci ay heure mu doog a dem ci dimension yooyu moom bi muy am deux minutes mu ngi naan wu yaay samba ay waay samba wu yaay samba ay waay samba jur ko bi dama yëngal baay dix minutes ci ah. jur góot ah. moom moo jóg fekk ma fi ma toxaw <laughs> ne ma booy ban jën nga bëgg ci jën yi ma jaay la yabooy wala jaay waaw ndeysaan <laughs> boobu ma nga jëndi ndox ma waaw kay. ah lii doy na waar de. waar. ma ne ko ma ne ko ma ne ko ma ne ko musali la rek. ah comme comme te comme ndeysaan ndaanaan yi dañ fee toog. waaw nekk fii ci ginnaaw wax dëgg yàlla di ay ndaanaan yu. léegi joxol bàyyi sa xarit boobu. comme sànq waaw comme da nga ko présenté. ni ndaanaan la nga jàllaat nii toog ni nga jàllaat nii toog ni moom mu def dara rek. ñu bawal ah, mm-hmm. ñëwal si Ngom doxal ak moom mu jóg play back boo paree da ngay jóg play back enchaîné dem ak sa yoon dégg nga ndeysaan ndeysaan dëgg la waaw si mm-hmm. yàlla na yàlla guddal sa ne nii yow leen naan càpp wala ñu nuyu Cheikh Moustapha rek waaw ndax Olof Ndiaye dafa ne mbu naa la ca dégg ba mu muy nux ba ca ban ba mm-hmm. dëgg la waaye nag ñu ne kuy làqatu moom doo feeñali tànk dëgg la si Ngom dañoo mës a ànd maak moom lu neex. Mm. ndeysaan fekkee na ko kay li ngay wax kay ndax ñun moom. Mm-hmm. dañoo séré dañoo gën te dañoo yiw. Mm. waaye nag Cheikh Moustapha maa ngi di ziar.